jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax kontaan dellusiwaat ci seen émission digg penc alxames bu jot ñu ànd ak euh, équipe bi euh, tànn it ay ponk ci actualité waaye du ñàkk dinañ taxaw bu baax a baax ci nouvelle bés bi nga xamante ne. voilà donc dañuy commencer par ñaanal aram suñu collègue la suñu sœur la dañu dem ba mel ne sax bokkatuñu li nga xam ne moom mooy liggéey bi tellement que foofu la ñu fekkante mais li nga xam moom la woon ci liggéey bi. ci jàppale bi ak ci woo yi muy woo sax nga xam ne parfois ba defee émission ak yu mel donc loolu ma def témoignage ci moom daal loolu la xam ne nit ku simple la nit ku humble la bu ñuy commencé café actu fekk euh, les ñëwuñu woon dafa defar karaaf defar kaas mhm. daal di koy personnaliser andi ko ba bureau dawal otoom ne ma am kii man maa la ko jox booy def émission de ko teg sa kaw donc li ñu koy ñaanal mooy succès mhm. ci lépp loo xam ne dugg na ci parce que nit moom bu ngeen nekkee di liggéey ngeen dem ba mu jàppee la comme sœuram yomb nit bu nekk gis na relation ak mënoo ko waxal ne def na lii wala benn lii li mu ñëwoon mel noonu ba ba léegi noonu la continuer di ko mel ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko jëkkër bu baax. ak tan ah lépp loo xam ne sumb na ko wala bëgg na ko ci xolam yàlla na ko ko yàlla may. di ko wax Seydina Mohamed di ko ñaanal ah, moom moo xam ne mu bëgg ci xolam. ñu ngi ko koy ñaanal en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy collègue am ñu ñooy collègue am mën nañ ko seedeel parce que li ngay passé ak say collègue doo ko passé ak sa famille. mais dañ koy wax ne te lañ ko gën a bëgg. waaye dañoo ñëw ci kër gi nag mu jël matraque dañ ko teg pour ñu mayee. dina <laughs> ko dina ko wax moo tax waaw lii loolu araw ci kii ci kii ci sévère la. joyeux anniversaire. Aram man bi ma ko xamee yàgg mais wallaay euh, avant avant ma koy fekk sans limite. laa mën wax dama ko doon seetaan TFM 2S mu nekk. une dame pétrie de talent loo ko loo ko bañ bañ bañ a mën a waxal. da ngay xam ni elle a du ba pare il est très professionnel. Euh, ñu commencé nag di ko gis ci Café Actu muy ñëw indi beneen casquette une casquette boo xamante ne ñu ñëpp ko bëgg. parce que dafay wone professionnalisme mais dafay wone culture générale bi mu am di wone aussi euh, que ni moom bu weesoo présentatrice bi mu nekk rek dafay gëstu donc sujet boo ko indil il est très à l'aise day wone ni mu ngi gëstu bu baax ci li mu nekk Eh, man dama koy dama koy suivre ci yeneen plateau yi ah. bien avant café actuel yooyu noonu yëpp mais mën nañ ni ñun ñi nga xam ne peut-être dañu ciy soog a dugg dañuy gis suñu bopp ci moom dañ koy xool di jàng ci moom di jàng ci ñeneen ñu mel ni moom euh, mu ngi koy ñaanal rek mu yokk ah, xam nga man mun ma wax ma voix tremble <laughs> wallahi parce que tàmmuma ma dama je suis très timide mais mais mais dinañ ko def pour moom li Cheikh Omar wax ne tànk bët dina dem fu mu bëggul waaye tànk du dem fu mu bëggul donc si elle était pas bien avec nous am nañ fullaay toog suñu kër bu ñu woowee mais ni ah, mu mel ak ñun ñëw oyof xam nga ñëw bokk intégré ñu moom Ngoné ak ñeneen ñi nekk ci kër gi alors mun di lu dul di ko ñaanal cet anniversaire mu yokk ko féete ay ati ati ati at et ci li mu nekk mu yokk ci yokk ci ba yëg ko et que benn moroomam bañ ko ci ñun loolu rek lañu koy lañu koy ñaanal joyeux anniversaire à ah, am boom kër bu baax mm-hmm. yi nga ñuy teg di ñu commence wax dëgg yàlla nga bàyyi ko mami bu lay image bi ngay wone mami tamit bëggoon na ci télé bi du te xam nga moom mami yaa njëkkee bu bu Pa macha allah d'accord Pape ñu moo tax mais moom aussi mu koy mu ngi koy anniversaire mm-hmm. te bu fi nekkoon ni ma ñëwee moom noonu lay ñëwee voilà te bu ma ñëwee day mel ni ñëw na bu rek ndeysaan sa benn baat rek laay wax benn baat rek boo xam ne day euh, résumé lépp mooy moom muy euh, way juróom bu góor comme muy way bu jigéen gërëm nañu ko ci li ñuy dund waaw loolu rek fa duma ci teg leneen Ah, euh, ngërmande wayjur bu góor ak jigéen ci doom rek dafa tënk lépp parce que dafa am nu mel moo tax ñu am mu am ngërmande yooyu donc ku yaayam ak papaam gërëm waaw loolu dafay doy sëkk voilà donc ni ngeen ko fekkee nii ak waa këram noonu la mel aussi waaw moo tax euh, ñu ngi leen di gërëm ñoom Dieynaba ñoom Moussa ñoom Mohamed ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay bi Aïcha madame Touré gis ngeen euh, euh, euh, ki ngeen di gis noonu yaayam lañ ko tuddee ah, ah. donc. bisimilah rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ka wax sarap li. Pauline Pauline Pauline Pauline Pauline. ana Ndayaram. maa ngi ana Mohamed. maa ngi nii. en la noo wateel. en la noo wateel. woote noo tey dem nañu woote dem nañu woote noo tey woote stop seen raxas nañu ndox taxaw leen waaw benn benn deux ah. yal na yàlla sàmm nday xam Touré ak Mouhamed Touré ak njaboot gi fi teew yëpp Aïcha Touré les collègues Aïcha Diayraba euh, sama doom Aminata euh, ak ñi fi nekk ñëpp tous les collègues de service de travail de vie de famille mm-hmm. yàlla na yàlla def ñëpp dund ba setaat yi te tànk mu ànd ak mucc muccule ak mujj gu rafet ak jaboot ga barkeel ñëpp tedd amiin Seydina Mouhamed sallallahu ñi fi nekk ñi fi nekk bare na lu barewul waaye nañu yàlla na ñëpp nekk milliardaire. amiin te lépp ji yëpp yàlla na Sénégal neex. amiin yàlla na Afrique neex. amiin yàlla na àdduna bi neex. Eh, ma tëj. ma ma tëj <laughs> ma tëj ah. Euh, les revenus gagnés saa laa la yàlla na doublé. pour ñëpp ci fépp fu waay di yëngatu rek yàlla na yokk. Bass TV ak Sans Limites ak Walf ak fépp ma tëj parce que Sans Limites nu ñuy gagné te nee nga buñ liggéey tey waaw waaw non tey mënu loolu tëbal tey exception ah nit nelaw kon du ñu gagné euh, bi si des nag man duñu gagné ankay bi si des bi si des nee euh, rek yàlla nga am kër boo xam dafa lay bëgg bu ñu la gëmee ayu nag mu may catal nee na moom bu ma waxee lu a doon mu jël arrêt <laughs> <laughs> mais am solo léegi ah, ah, ki nga moom la yàlla wërsëgal mu jot si ndey ara xamal ni dénk na lu seen njaboot nga am a doxale Mouhamed yow ak njaboot gi yàlla na ngeen yow amiin amiin waaye sarab eh, Aram ak euh, ak Pape je les suis depuis très longtemps depuis bi ñu nekkee euh, RDV Euh, ci seen émission après midi boobu ñu doon def. Ah, toi même tu sais euh, man bettuma si euh, li ma gën a impressionné ñoom ñaar mooy cette cette loyauté ak fidélité bi nekk si seen diggante ñoom ñaar je crois que j'ai le j'ai eu à fois. te te loolu te loolu loolu loolu dafa dafa dafa dafa doy dañu ne dañu ne loyauté ak fidélité ci ci àdduna moom mooy moom mooy nit. Euh, parce que ak li fi jot a xew ci àdduna bi léegi y a trop de gens qui se trahissent entre eux. oui et euh, et vraiment boobu man moom ma njëkk a impressionné si ñoom ñaar. quand je l'ai retrouvé avec mon cousin ci seen kii boobu la mooy restaurant bi nekkoon ci RDV. ah j'allais voir mon cousin là-bas. ak Nicolas le jeune Nicolas qui était un pote. et donc du coup euh, non seulement je je je l'ai trouvé bien mais en plus seen liggéey dafa dafa rafetoon. Aram nag personnellement gis naa nu mu avancé ci ci ci liggéeyam doon une jeune femme am fulla ma gis sa trajectoire de de de vie professionnelle dans le milieu donc euh, du journalisme gis ni mu jaaree fële euh, euh, comment dire euh, TFM gis nu mu demee 2STV. Ah. non mais man du ma dem du ma liggéey xam ne damay xool ñi may ñi may toogal ba pare parce que sinon man je suis libre de faire ce que je veux parce que damay gedd man damay bàyyi bu mu bëggul daal du ma ko def donc donc c'est des c'est des gens que j'aime kii Pape Ousmane moom dafa moom moom jàmm ak ñëpp la quoi. Euh, waaw waaw dafa dafa dafa kii. après il m'influence beaucoup parce que léegi dina tax may sóoraale ay ay ay polygames yi parce que avant c'était pas très bien. <laughs> Oh Donc, donc du coup, du coup c'était une petite, c'était une parenthèse de, de rigolade. mais mais mais dëgg-dëgg dëgg-dëgg. <laughs> mais dëgg-dëgg non franchement je te dis c'est une femme boo xam ne moi je pense que ni elle a elle beaucoup beaucoup d'avenir parce que tey na tekk na et il est très très professionnel da nga gis aram bu toogee nii mm. avant euh, avant kii bi avant avant émission bi ak bu démarré da nga gis c'est une personne c'est la dafay changer. c'est vrai beneen beneen beneen kii beneen c'est vrai te loolu loolu loolu loolu dama ko dama ko bëgg parce que man noonu laa mel. quand je suis dans un boulot je je. c'est la moyen waaw donc donc c'est une bonne. Aliou yaa ngi jooyloo. Aram yaa yow yaa ngi jooyloo kii de Aliou yaa ngi ko jooyloo yaa ngi koy jooyloo de. yaa ngi koy jooyloo de. non non très sérieusement. c'est c'est. Euh, si si elle est bien entourée c'est une femme qui a beaucoup d'avenir dans le milieu. Kaka entourée. non non Kaka entourée. sur le plan professionnel. ah waaw Kaka entourée. looy entourée. xam nga nag aussi. am naa am naa am donc donc donc franchement ku ko entouré di nga quelques années bu leen ko gëm nag jàpp leen li ma leen wax. dans quelques années vous aurez une grande femme. comme présent surtout une man j'en fais une grande présentatrice de journée. Oh, eh, eh, eh, aw bu ngeen di tàcc aw ak a def aw. non man aw lu tax ngaa def. mais bu fàttali ne je suis pas. professionnel nga wax de. non dama ne je suis pas. professionnel xam nga am naa journée. lu tax nga naan man. xam non xam naa journal te te naru ma taxaw fii. alam alam alaña alaña ba boos. aw mënuloo def polygamie. waaw aw bloqué. nasaraan yow tubaab yow amul cuuraay Euh, waaw kontaan ah ak continuer kontaan ak mbégte ci nu ñu accueillir remercier surtout suma suma yaay Dieynaba ah remercier aussi Aïcha remercier Ahmed remercier waa kër gi yëpp. ak madame madame Touré. ah Touré Malick xam nga Pa Ousmane mooy porte parole. moom waaw moom mooy gérer délégation bi bu ñëwee. mais mais Aram euh, man man pour ma découvrir ko. Euh, ñu ngi ci média yi depuis ay années boobu ñëw ma sans limite nit dina la gis si écran te xamoo ko xamu mais ma gis si moom dignité bi ak euh, professionnalisme ak surtout caractère bi parfois su ma koy tooñ sax ne ko eh, yow télé boo dem gedd du du gedd parce que nit principe la euh, olof Njaay nag nee nit li nga nàmp ngay gàll donc ci liggéey bi ñu seek aussi mu koy def ak professionnalisme et puis sénégalais nawloo ko aussi ci ci mën liggéeyam bu paree ni muy tenir plateau mhm. fexe ba organiser ko organiser ay débat de qualité donc euh, bu xewlee ñëpp bàyyi seen yitte tey xat na mais nit ku la yëg rek nga yëg ko mm. te Olof Njaay nee na bët dina dem fu mu bëggul waaye tànk fu dem bëgg na fa moom nag ni mu mel ni nii la war a mel ndaxte euh, Pa Ousmane ak moom yàgg nañ mm. parce que tubaab bi dañ na ko Lat Joor ko loo bokk bi mu ne dañoo yàgg waaw ñaar ñi dañu dañu dañu yàgg et puis laa biir mm. parce que man du ma du ma wax kenn yàllaa ngi te gisuma ko parce que bu fekkee ay nit ci bërëb buñ la yaatal euh, waruñu la laa biir doo nekk à l'aise donc dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla musal ko ci cat euh, projet yi mu am yëpp yàlla taxawu ko si yàlla may ko borom kër gu baax ku am yërmaande suuf suuf Aliou Sow loolu moom damay xaru du ma ko laal